Salam alaikum internet yi dal ci football TV tay maa ngi fi pour présenter le journal du mercato des Lions li ci gëna fess moy Kali Kalidou Koulibaly Kalidou Koulibaly ciblé par Chelsea waxoon nañ ko fi la fois passée euh, donc nak tay dañuy ñëwaat gën leen confirmer parce que gis nañ agent wa à Londres actuellement té Napoli ci bopam mom dafa 40 millions d'euros ku ko tek mu jaay la té Chelsea dafa taxaw temb pour jënd ki nga xamantene moy mooy Kalidou Koulibaly après départ Rudiger Kalidou Koulibaly bu mu refuser l'offre de Juventus donc suñu xel day dem ci Chelsea directement ah, donc bien internet yi lo leen wax c'est une bonne idée pour mu dem ou pas parce que ñun bëgg nañ ko gis en plus muy jouer fa li nga xamantene moy Ligue des Champions euh, il le mérite vraiment donc ñoo ngi leen di ñaan ngeen wax ñu seen xalaat ci commentaire yi bu loolu weesoo ñu ñëw ci ki nga xamante ne Alun mooy Badji Alioune Badji ancien coéquipier de Crépin Diatta euh, petite catégorie équipe nationale nak euh, nag dafay performer fële ci Amiens il a été performant l'année passée ba tax na Montpellier nous on ko soxla année bi Pape Matar FC Metz c'est fini Je ngi leen di remercier sax d'ailleurs ci compte Instagram am euh, actuellement day delluwaat euh, Tottenham Légui ñun ñun ñun xamuñu nak ñun si wa Tottenham dinañ ko may chance pour mu jouer ou pas mais en tant que sénégalais souhaité nañ vraiment mu jouer Tottenham parce que fofu day yok visibilité en plus de ça il est talentueux machallah. ah ñu espérer rek peut-être dina jouer inshallah ñu ñëw ci ki nga xamante ni moy Abdou Diallo Abdou Diallo actuellement ñaari club ñu ngi koy xëccio feulé nga xamante ni moy euh, AC Milan ak euh, West Ham té wa PSG instant yi teg nañ 15 millions d'euros pour transfert mais da melni wa Milan ñoo ci gëna insister ñoo ci gëna a Mom, est-ce que dem Milan sax gënul ci mom parce que gis nañ concurrence bi à Paris c'est dense ay ñom Ramos et tout té mu dem Milan mo gën ci mom pour mu jouer Ligue des Champions ñu jeexalee ci xibaar yi ci ki nga xamante ne nii mooy Gana Gueye semaine bi yëpp ñoo ngi dégg ñu naan day dem Turquie semaine bi yëpp ñoo ngi ciy laam-laame di ci xalaat euh, léegi nag c'est officiel moom refusé na offre équipe bi nga xamante nii mooy galatasaraay li tax mu refusé ko sax bokk na ci dafa bëgg xeex place fële ca PSG ak entraîneur bu bees bii di ñëw dafa bëgg xeex place am wone boppam comme ni mu ko def année yi passé nii yëpp dafa bëgg a doon titulaire lii nag moo nekkoon xibaar yi foot mercato de Lions di leen jaajëfal bu baax di leen wax ngeen wax seen xalaat ci commentaire yi à la prochaine incha ak yeneen xibaar. bu leen fàtte di abonné ak di cliquer ci cloche boobu ngeen di gis vidéo bu ñëw ngeen mën ko seetaan jërëjëf ba beneen.